lul ma wax la waral tukkeem ba kon nga siyaare ko baam ca yool ba Cheikh Ibra Mbàkke ne koor wa la baam ba ñëw fa moom digal ko yoon wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan amaan nañ mbégte toogaat fii ci jataay bii nga xam ne ku jàkkaarloo ak jëmm jii di cheikh Mahamadul Fadal moom cheikh Ibrahim moom Serigne Touba Xaadimu Rasul xam ne toog na ci ndigalul kilifaam di sëriñam di sëriñ Ndaam Abdullahi moom Serigne Ibrahim moom Serigne Touba Xaadimu Rasul di ñu gën koo meen ci sëriñ ndam Atta mu jële waat ndigal nag ci Serigne Touba cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm si ci kër gi nga xam ne kërëma jëm si ci bis bii nga xam ne bisama bisub waajurama bisub sëriñama bisub kilifaama di bisub doomi sëriñ tubaa yëpp waaye di bisub yoonu murit ne bis bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim Mbacke doxi woon jéego yooyu nga xam ne ku déglu bayit yi jiitu xam na ci ndigalu sëriñ tubaa la ko jóge woon àggale ji sëriñ tubaa xaadimu rasul lam ko digal ca Congo ak ca Mayomba te ba mu fa demee kat ñëpp gis nañ tegtal ya ak la nga xam ne mooy waxi sëriñ tubaa waxi sëriñ tubaa tey jii mooy waxi ëllëgam mooy jëfi ëllëgam dara du ci dañ loolu moo ci la jëloon ndigal ci sëriñ tubaa xaadimu rasul ngir mottilil ko jéego ya ba dem bitim réew dem gabon dem ci barab yi sëriñ tubaa demoon yëpp ba dellusiwaat fii ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kor wi di amee nag ca Mbàkke Bari këram ga nga xam ne ba sëriñ tubaa di jog foofee la jóge woon ca Mbàkke Bari Jolof Cheikh Ibrahim jóge ci Mbàkke Bari Mbàkke Bawal fa nga xam ne fa la sëriñ tubaa feeñe jamono mu war a yemoo nag ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bis boobu nag moo tax sëriñ Fàllu toog ànd ak njaboot yëpp ci ndigalul sëriñ Daam Atta Mbàkke moom Cheikh Ibrahim di ci woo mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp nag. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ak fu fi waay mën a nekk te di ñu dégg wala nga di ñu gis ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaar di la ndokkeel ci weer wi nga xam ne ni ci lañu génn di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yooyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatul am li taifatil muridiya ak mbooleem njabootu sëriñ tubaa gi leen ñaanal nu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li ñu yéene liggéeyal sëriñ tubaa ñu mane ko ñu ko bëggee bu ngeen gisee jataay bi nag ñu xam ne kon delseeti nañ ci bis ci waxtu fii ci kër Cheikh Ibrahima Mbacke xaadimu rasul ngir waajal bis bis boo xam ne niñ ko baaxoo di waxee bisub fàttaliku la di bisub ñaan muy bisub Cheikh Ibrahima Mbacke ibnu Cheikhul Khadim ñu baaxoo ko amal nag at mu ne ci waxtu wi bu ñu waree ba am fukki fan ak juróom-ñaar fee ca këram gee woon ci Mbacke Bari gi ci Bawal bis boobu nag niñ ko waxee bisub fàttaliku la bisub ñaan waaye dañ koo jàpp ci bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon doxi jéego yooyu nga xam ne moom la ne moom la ko sëriñ Touba santoon ngir mu toppal ko ay tànkam mottulil ko ati tukkib géej gi wax ne sëriñ beeg ko sant defal ko tawféex yi itam mu dem defe ko nag ko sëñ bi sante woon ba dellu siwaat fii ci réew mi mu jóge woon fi nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, kori wi ñibbisi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tamxarit mu tollook net diir bi nga xam ne moo desoon ci juróom-ñetti at yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne moom la diggee woon ak boroomam ndax sëñ bi euh, juróom-ñaari at la def ak juróom-ñetti weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bis boobu nag ñu xam ne kon moomunu ko dañ fee féete li leen ko taxawul waaye noog murit yi ak jullit yëpp a ko bokk waaye rawatina njabootu Serigne Touba gi kon ñi ngi tàmbalee woote boobu ci njabootu Cheikhul Khadim gi ci njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Lamine Cheikh Mouhamadul Bachir sëriñ Abdullahi Cheikh Abdoulahat sëñ Abdoul Khadir sëñ Saalihu sëñ Chouaïbou ak Cheikh Mouhamadul Mourtala ak waa kër sëñ Abdou Samad ñoom ñoo ci jiitu ndax noog ñoom noo ko bokk noonu itam lañ koy àndeek euh, njabootuk sëriñ tuwaay bu jigéen gi ñu commencé ci soxna Faati Ja ba ci soxna Maymunatu Soxra waaye noonu itam lañ ciy wooyee di ko fàttali bokki sëriñ Tuubaa euh, ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëñ moor Anta Sali yëpp ñoom itam kenn gënu leen ca yey ñu ngi koy ànd ak ñoom te leen ko fàttali di ko fàttali waa kër maam bala Aysa boolem ku ko sëriñ bi bokkal ñu ngi la koy fàttali di ko fàttali mbooleem ku bokk ak sëriñ bi maam maharam noonu lañ koy fàttali itam askanu Mbusoobe yëpp waa kër sëriñ Mbusoobe ak dul ñoom rek ñu ngi la koy fàttali di xam ne noog ñoom noo bokk bis bi ñu ngi leen ciy woo te di leen ko yëgal noonu lañ koy yëgalee itam di ko fàttali mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñooy jëwriñu yoon wi àndoon ak sëriñ bi liggéey bi ba fu mu yegsi tey jii ñoo ko fa yegsil ñu ngi leen ciy woo di leen ko fàttali leen wax ne bis bi seen bis la ak umma islamique bi yëpp nag kenn desul mboolem kuñ bokkal diine lislaam ñu ngi la koy fàttali di la ko yëgal waaye ñu ngi koy yëgal itam waa réew mi yëpp di ci woo ñëpp di wax ne itam bis ba bisub ñaan la bisub jokk bokk la bisub alquran la bisub xasida la kon ñu ngi ñaan di fàttali ñëpp képp ku man ñëw ànd kook ñun nu ànd ñaan ya ak lañ cay def ci lu baax alhamdulilah koo xam ne nii itam yàlla mën loowu la teew gi la nga man ci ay ñaan ak jàng alxuraan ak salaatu ala nabi xasida nga def ko ngir jëmmi borom bis boobu kon loolu sëñ baa ngi ciy soññe bu baax ndax mooy illay bis bi ndax bisub ñaan la waaye bisu fàttaliku la ah noonu itam la ñuy waxee ne sëriñ bi nee na mbooleem taalibe bu aju ci kër gi te Cheikh Ibrahima di sa bunt mi ngi lay digal boo ko mënee foo mën a nekk nga bàyyi la ngay def te ñëw nu ànd liggéey bi ànd ba ndax bis bi seen bis la kenn waru leen caa jiitu di ko yéwénal loola ñoom mi ngi leen ci soññ bu baax di leen ko fàttali moo dem fu fi taalibe bi nekk loolu itam sañ ndongo si dana ci gën a ñëw gën koo gën koo yaatal kon daal bis baa ngi noonu fukki fan ak juróom-ñaar ci kori wi lay doon war a dëppoo ak aljuma incha allahu tombeeg le 21 juin incha allahu taala di wax ni bis boobu itam dee na ko waajale bisub xasida ak alxuraan boo xam ne xëy na dañuy jàpp bis bu gën a yaatu bala ñu yegg ca bis ba muy altine ja koy jiitu war a tombeeg le 17 incha allah danañ daje fii ci kër gi ci jumaa ji ànd ak mbokki taalibe yi ñu jàng fi alxuraan jàng fi xasida jagleel ko borom bis bi ak mboolem njabootu sañ Tuubaa bu ko defee bu ñu demee ca bis ba itam nañ ko xamee daañu xëy nekk ci njàngum kaamil ak alxuraan sëriñ bi dina ubbi recevoir gan ñi euh, nu nekk ci loolu ba xëy na bëccëg bi nu def wàllu bernde yi julli tisbaar euh, ci ngoon gi itam am na conférence bu ñu fa daan def ngir yaatal liggéey bi ak berndeel nit ñi ci wàllu xam-xam ak liggéeyu Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo tax ñu woote bis bi suñ ci doxee nag ba julli timis ba noppi incha allahu ci lañuy ñuy def cérémonie religieuse ba. kàddu yi nag ma ngi jëm si ñun taalibe yi ñi nga xam ne bii ñoo aju si kër gi ñi nga xam ne bii ñoo aju si kër gi nga xam ne lépp loo xam ne lii moo war ci liggéey bi ñun la war kon nag sëñ bi dafa wax ne képp koo xam ne kii taalibe nga boo xam ne bii si kër gi nga aju eh, lu commencé. Euh, ca euh, euh, altine bi nga xam ne bi mooy semaine bi nga xam ne bi mooy aljuma ji moo say mujj képp koo xam ne kii ab taalibe nga ak foo mën a nekk ña ngi lay woo pour nga bay itti boo mënoon a am pour nga ñëw ci màggal gi ndax nee na kat dafa am loo xam ne lii moo wax diggante taalibe bi ak sëriñ bi mooy digal la nga def tere nga bàyyi ñëw si màggal gi nag day ndigal loo xam ne lii képp koo xam ne bii taalibe nga boo xam ne bi da nga aju sëñ Ibrahima Mbacke nee na ñëw si màggal gi lu war la maa ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa di sëriñ Fàllu Mbàkke Ibrahim bi nga xam ne kàddu gi may waxe ak kàddooma moo ma jox ndigalul ma wax ci kàddoom mi ngi leen di nuyu tey jiital ci nuyoo bi alxati alxalifatul am cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo toog toogaayu Seexul Xaddiim tabis bii di am ci ndigalam di nuyu di nuyu mbooleem bokk yi nga xamante ne nii moom la bokkal sëriñ Touba di nuyu mboolem Cheikh si di nuyu mboolem taalibe murit di nuyu mboolem tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal di nuyu mboolem. képp koo xamante ne ni ab Sénégal ab sénégalais nga wala sax nekkoo Sénégal waaye yaa ci àddina bi ak foo mën a ne di leen fàttali bis bisub Cheikh Ibrahima bii nga xam ne bokk na ci ndigal yi nga xam ne ah, ci ndigali Seyxul Xaddim yi la muy bis boo xamante ne ni saa yu waxtu wi jotee danañ leen ko fàttali fas yéene itam at mu jot muy gën a jëm ca kanam ñu am yéene nu mel ren bu ne mu mel nu ko raw di leen ko yëgal di leen ko fàttali di ci jiital it ci ñi nga xamante ni ñooy wàll geneen wàll gi le président de la république di Sénégal monsieur Macky Sall nga xam ne képp kuy ku nekk ci réew mi fi mu ne moo mooy sa président de la république waaye di di ko yëgal euh, Moustapha Niass président assemblée nationale di ko yëgalit soxna Mimi Touré président conseil économique et social di ko yëgalit ay ministre am ku demee ni maître Youm ak ku mel ni Abdou Karim Fofana di ko yëgal mboolem membre yu gouvernement bi di ko yëgal le gouverneur de la région de Diourbel di ko yëgal it ak sous-préfet ak meerub Touba loolu ñëwoon nañ ci ngeen xam ne daal sëñ bi bàyyiwut kenn mi ngi koy yëgal ñëpp di leen fàttali it solos bis bi solos bis bi nag mooy jéegooy Sayxul Xaddim yi nga xam ne moom la doxi woon te ba mu ñëwee mu indi sërite boo xamante ne ni ci la ñuy lu booba fi mu nekk nii fay ga sax ñëwagut maanaam ab sërite la rek boo xam ne moom la indaale ñu koy xéewloo ci àddina muy muy mboolem njariñ lu ngeen fi gis loole moom lay woote njàngum alxuraan bi mi ngi koy fàttali ak njàngum xasa xasaayit yi euh, mi ngi sant ñëpp ñoo xamante ne ni daanañ ci jàpp te ci seen ndimbal laa ci ñëw parti opposition yi ku mel ni maître Ablaye Wade mi nga xam ne xaritub sëñ bi la maître Madické Niang mi nga xam ne doom la ci kër gi ak ñeneen ñu demee ni ñoom bàyyiwul kenn fàttiwul kenn sëriñ Fallu dafa wax ne sëñ bi jox na ko ndigal ne mbooleem taalibe yi seenu barkeelu ci liggéey bi nga xamante ne ni mooy université tubaab bi nga xam ne mooy ndigalul seex mun seex seex Muntaxa Mbàkke sëñ bi nee na bañ màggalee ba ca suba sa na ko ñëpp daal di indaale ñu barkeeloo ko ndax sañu war a dem siyaare ji sëñ bi yóbbu ko suñu suñu suñu liggéey. déglul ma wax la la waral tukkeem ba kon nga siyaare ko baam ca yool ba Cheikh Ibrahima Mbàkke ne ca weeru koor wa la Bamba ñëw fa moom digal ko yoon wa